li nga xam ne moom moo di ñaareelu pàccu émission bi comme ni ñu ko xamlee di ngeen am seen rubrique miroir de l'islam ci njeexintal gi waaye itam euh, dañuy ñëw léegi ci rubrique royukaay tey nag faatu ju Faye fas yéene waxtaane ñaar ci ay sujet yoo xam ne dinañ waxtaane suñu ñaar ci ay maam waaye itam ñi nga xam ne ñoom ñoo fas yéene waxtaane suñu maam yooyu di invité yi daal nañ leen dalal fii ci plateau bi duñ def lu dul nuyonte ak ñoom bàyyi leen ngeen nuyonte nga xam ne ñoom ñoo di téléspectateurs yi euh, ñu daal di fa sóobu ci li nga moom moo di ci waxtaan bi dañuy njëkkee euh, ci Serigne Modou Bousso ñu ngi lay nuyu nuyu la bu baax a baax wi nga xam ne ñoom ñuy seetaan. ok jërëjëf soxna si. Mhm. boo mënee jege micro bi rek. Mhm. Mhm. jërëjëf soxna Coro ñu ngi leen di nuyu yéen it. delloo nañ la fay bu euh, baax di nuyu soxna Fatou. di nuyu sama mbokk mi ma euh, dajal ci plateau bi suñu maam Cheikh. Euh, di am mbégte lool ci dalal gi. di fas yéene ñëw tey waxtaanee royukaay bu mat royukaay. sëriñ Mouhamadou Khari Bousso waaw mhm. ah, dañuy ko ci jiit di waxtaan wi nag bala ñoo tàmbalee dañuy jiital nuyu suñu kali suñu kilifa mhm. ah, sëriñ Mountakha mhm. di ko ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ko ah, di nuyu sëriñ Bousso bi Bousso mi nga xam ne mooy xalifa Bousso bi yëpp waaw moom it di xalifa sëriñ Massamba Fatick muy waajuru suñu Modou Khari mi war a fas yéene waxtaanee tey ak sëriñ Massamba Bousso mi nga xam ne moo moo ñu ñebal i waxtaan wi ak ci bis Mhm, incha allah ci kanam lay doon donc am nañ fi beneen ci ay invité bu yooyu ci turu euh, sëñ euh, euh, Cheikh Mbacke sëñ maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Balla du ñu def lu dul dalal la bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi. <laughs> jërëjëf jërëjëf bismillahi rahmaan alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabina muhammadin mhm. wa ala alihi wa sahbi wa salama taslima mhm. soxna Coro maa ngi lay delloo nuyu ak ziar di nuyu soxna Fatou Diouf di nuyu sama xarit bi nga xam ne xaritu suñu Abo Mbacke Khadim Awa Balla maa ngi ko nuyu baax a xaw nañu fee gëj tuuti waaye ñu ngi leen di suivre saa su ne. Mhm. ci actualité yi ak ci wisaare gi nga xam ne wisaare lu am njëriñ. Mhm. di nuyu baax sama mbokk mu suñu Modou Bousso mii mhm. da ngay wax soxna Diarra Bousso. Serigne Touba. Eh, kon am naa mbégte lool daje feeg ñoom wax dëgg ñuy waxtaanee sunu maam ju mag jooju suñu Modou Khari Bousso. ah di nuyu nag ci jëlbeen gi Cheikh Mamadou Mountakha xalifa général Mouride ak sëñ Babacar Sy Mansour ci turu AIS waaye di leen nuyu ci turu comité d' organisation journée ki te sax ma lañu baar bi nga xam ne sëñ Bassirou Mbacké Xaadim Aw Ba boo euh, ko initié euh, depuis 2004 waaye ci njiital tamit euh, président comité d' organisation bi sëñ Jili Mbacké Abdoul Aziz Baara mboolem njaboot suñ baar ak njaboot mboolem njabootu Sëriñ tubaak gépp dal macha allah Fatou ñu daal di jublu ci waxtaan bi ak sëñ Maam Cheikh waaw ñu ngi ko waxee rek Coro suñu première partie royukaay bi ñu ngi ko waxee ñu war a waxtaanee ci journée euh, Serigne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñi mm-hmm. nga xamante événement bi ñu ngi koy amal niki suba ak ki nga xamante ne mooy suñu invité di maam Cheikh Mbacké Khadim Awa Ba nga xamante ne moom mu ngi bokk ci li nga xamante ne mooy association bu mag bi di AIS mm-hmm. donc ak seen journée culturelle yi nga xamante ne dañ koy amal annuellement mm-hmm. ñuy waxtaanee ci sëñ Bara sëñ Bara bu ñu ko doon waxal buñ ko déggee dañuy yaakaar ne sëñ Bara baaraamu mag bi la. waaw ñu mën a expliquer. ci wax ci <laughs> soxna na xam na ko de. bien sûr borom rek de moom. wallaahi ku dëkk Kajoor wala nga dëkk kii rek moo koy. <laughs> macha allah tabaarkalla war na dëgg. ci soxna Fatou ci wax na dëgg tamit ndax bu ñu nee suñu baar rek. tamit mhm. en génération bi. Euh, ñu bari dañuy jàpp ne ah, sëñ Alaaji Baara mi nekkoon xalifa général de Mouride la. Mhm. waaye benn la ndax euh, sëñ Baara mag. mi nga xam ne moom la ñuy defal su culturelle bi tey doomu sëñ Tuubaa la mhm. euh, moo toppoon sa Cheikh Amadou Fadal mhm. bokk ak euh, sëñ Modou Moustapha ñu nekk njëkk ab nekk premier premier a général de Mouride ndey ak baay mhm. donc sëñ alaaj baara mii nag nga xam ne moo nekkoon xalifa général de Mouride moom la ko sëñ Fallou tudde sëñ baara moo ko uf tuddee ko boppam donc kon noonu la mbir mi demee waa kon booy jaawalee bàyyi ak doom loolu dara nekku ci ndax léegi def def ceeg sotti ci la rek waaye gis ngeen ci écran yi kooku mooy Cheikh Mamadou Lamine Bara mi nga xam ne euh, quarante quarante six la dund nekkoon ñetteelu doomu suñ tubaab ni ma ko waxee léegi eh, nekkoonu ko xam ne dàkkantalam dañ ko daan wàlliyu kajoor wàlliyu kajoor mu ne ak fépp day ak fépp day eh, waaw loolu daal wàlliyu kajoor mu ne ak fépp day mm-hmm. donc waa kajoor xam nañ ko rawatina bu ñu luga Louga moom ku fa dugg euh, boo ne quartier Sëñ Baara yaakaar naa ñëpp xam ne quartier mm. quartier quartier Sëñ Baara mooy quartier bu mag mm. Mm. quartier boo xam ne ba fi pàkk yi gën a seet quartier Moustapha Diop ba waaw jeex na <laughs> ah. <laughs> mi ngi doon waaw <laughs> ah, Moustapha Diop benn waaw mhm. quartier boobu Sëñ Baara mii moo ko sanc moo ko sanc bi mu ñëwee Louga nga xam ne daraan wër ndax booba ceddu gi bari na lool ci Sénégal réew mi bari na boobu lislaam ñu tasaaroo gi xaw naa des tuuti donc ñu ñuy wisaare diine nga xam ne moom fu mu yendu tey mën naa fanaan feneen waaye fu mu dem ci dëkk yu mag dana fa sanc ab dëkk boo xam ne taalibe yi nga xam ne ñoo ko fekk wala julli ñi nga xam ne bëgg na leen a gindi day ñëw wut si ko ñii di ñëw di sàkku si ñaan ñii di ñëw ngir mu leer leen seen diine donc daan def nag fu mu dem nag sanc fa euh, ñu ngi fàttali bu ñu ñëwee Louga nga xam ne ko sancal bi nga fi jógee boobu <laughs> Louga ma dem ba ci peggu dëkk bi moom noonu la daan def mm-hmm. fu mu daan sanc day ñëw ba ca peggu dëkk ba mu sanc fa euh, daan na fii lépp dana fekk day waaye ñëpp xam ñu tey Euh, quartier Kër Sëñ Baara ci Louga mooy quartier bi gën a mag quartier bi gën a cher ay pàkk mën naa wax ne mm. ak bi nga xam ne lu bare bari ci wàllu administration bi ak lu bari euh, fa la fa la féete mm. donc kon ñoom dañoo amoon vision bu leen yàlla may mm. ñu xam maanaam géographie sax dañ ko daan xam xam fii bu ñu fi nekkee lan mooy leen fekk si tey ak lan la dëkk bi avancé lan lañ def yëpp yàlla xamal leen ko ci loo xam ne xam-xam suñu borom subhanahu wa taala donc kon kooku mooy si xamul leen ba waaye Kébémer tamit nga xam fa nga xam ne moom te bi muy ñëw dafa te dëkk bi rek la ñëw fu ñuy wax Mbàkke gas fa teen def fa lépp macha foofu teen boo demee macha allah sëñ Saliou suñu xalifa bi suñ xaade ba ma dana bokk ci jumaa yi nga xam ne dañ ko ñëw seetaan si ndax artiste waaw ci Kébémer dañ ko liggéey ci hmm. péncu péncu Baara waaw foofu lañ koy liggéey donc kon yi yëpp ay sanc sëñ baar la Mbàkke Kajoor Mbàkke nga xam ne Sànnusi la njëkkoon a nekk sëñ Tuubaa njëkk ko fa yebal mu nekkoon Sànnusi ndax euh, la waajuram wu jigéen jóge soxna Aminata Lo soxna Aminata Lo mm-hmm. Lo mooy waajuram macha allah mm-hmm. tabarakalla mm-hmm. te soxna Aminata Lo jigéen ju man góor gis nga demam gi ni mu demee bi nga xam sëñ Tuubaa mi ngi doogo nga xam ne woote bi de meleegu nii Fàllu ak ñoom ñett ne Eh, sama ruug su ñetti ruug yi am na ruugu ci yàlla suma murom soxna soxla hmm. faaw kenn dem ci nga xam ne yaayu suñ baara soxna amit loo moo jaayante hmm. boobu suñ baara ci at lay toll ak ak ak kii ci ci parental parental hmm. eh, soxna amit loo jaayante ne ko bàyyil ma dem demaale soxna aw bosom yi foofu nag jigéen ñi war na cee jàngal bare bare bare dee jot nga nga dem demaale sa wujj nangoo dem waaw waaw <laughs> nga nangoo dem malgré demal na sëñ ci waaye demaale hmm. ah, loolu yaakaar na <laughs> soxna Fatou maa koy laaj ak soxna Thioro jaayante gënu ko for jaayante bu rëy hmm. boo xam ne gëm yàlla hmm. euh, nangoo sacrifier ngir bàyyi sa wujj dem nangoo sacrifier ngir dem euh, demal sa demal sa wujj loolu yaakaar na am na solo trop donc wax nañ ne bi mu defee loolu sëñ Tuubaa ci sensé nekkoon baax na daa jug di julli timis euh, ndox suuf li ñuy wax jaan euh, boobu daal di laal soxna si avant sëñ bi ñëw fekk na soxna si wàcc na liggéey ñoom kon jaayeen googu nangu nañ ko changé te loolu euh, lu li lislaam da ko nangu ndax gis nga nit li ñaan nidar des fois doomu aadama day toog bu jàgg mu ne mu jaayante ak yàlla ne lii de bëgg naa ko def balaa timisa bu fekkee li may li sama jaay dëgg yàlla yàlla jël sama ruub mm. loolu loolu loolu dañ daan natt seen ngëm yàlla mm. mm-hmm. julli ñu baax ñu jiitu ñëpp dañ daan natt seen ngëm yàlla waaye dañ gis ne loolu yàlla da koy nangu ci sens kon soxna mi loolu tamit noonu la jaayante ak Sëriñ Tuubaa euh, moo tax euh, bi mu fi jógee Sëriñ Baara parental la la nekkoon nga xam ne waajur sëñ Fallou moom moo ko nampal waaw ah, muy soxna Obou Sa moom boobu fekkoon na mu ngi yor soxna Kunta mhm. rakk sëñ rakk si Amadou Fadal mu boole leen ñoom ñaar macha allah fa tax nampal nga xam da ngay mel ne sëñ Baara moo ko sëñ Fallou ñoo bokk ndey ak baay waaw ndax ndax mm. waajur mu jigéen soxna Obou Sa mm. moo ko moo ko moo ko moo ko donc nag sëñ Baara tamit dundam nekk lu riche dund gu riche goo xam ne 46 euh, ans rek la dund fi mu toog coow lu coow boo gisee image bi nag da xam ne photo bi bi ñu koy photo à de lu mag daal gis nga ko photo bi photo waaw photo ñoom dañoo teel am jëmm la déedéet demul ba magal 46 mm-hmm. ans ni nga ko gisee nii 46 ans rek la la dund mm-hmm. nag ñoom dañoo am euh, charisme boo xam ne mm-hmm. moo nekk ci ñoom ak xëyba boo xam ne yàlla mu leen bindee dañuy dañuy dañuy sax seen seen personnalité day day day day day feeñ moo moo feeñ ci foto waaye waaye bi muy dem ndaw à bu ndaw la demee 46 ans 46 ans bëriwul daanaka ñu fi toog ñëpp ëpp nañu ko dong donc nag euh, loolu la waaye dund googu mu def fi lu yéeme ci wàllu xam-xam mm-hmm. ndax ndax ndax xam-xam bi mu bàyyi moo waral Cheikh Amadou Bassirou tey mm-hmm. euh, di ne da koy feeñal waaye feeñal gi nag faaw mu jaarle ko ci ay journée culturelle yu mel nii mm-hmm. ngi nit ñi gën ko mën a xam donc sëñ Baara bind gannaaw sëñ Tuubaa dañuy wax ne ñi ëpp lu mu taalif ci gannaaw Sëñ Tuubaa loolu ci la bokk te loolu euh, firnde yi wane na ko ndax am na xasida boo xam mu nawir bu ñaan <coughs> bi nga xam ne daanaka man na euh, bay di ci nekk daanaka mooy euh, poème yi ci nekk daanaka mat na ay 300 nangam mën na ko te loolu dëgg la sax bariwaay gi <coughs> amut solo waaye di ci am solo mooy jëmmi xasida gi mat lim làmbo lim làmboo lim ci lim ci lim ci taalif ci xam-xam ak lim ci taalif ci digganteeg tawxiid ak yem ta yàlla sunu borom subhaanahu wa waaye ak ak ak ak liggéeyal yontu sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal Serigne ba pare mu defe ko anam boo xam ne bu yéeme la euh, euh, da ciy jàngalaale alquranu karim euh, maanaam saar yi soor yi soor alquran yëpp da koo indi ci biir di ci di ci di ci def tawassul waaye indi asmaa la xusna di ci def tawassul te yàlla mu wax ne am na ay tur yoo xam ku ma ci ñaan may la mm-hmm. waaye indi tur yent salance di ci def tawassul waaye di feeñal liggéeyub a siiw ci xam ne ci biir sax da ngay wax ne Sëriñ Baara mi ngi ndax dañuy wax ne Sëriñ Baara am njàngam kenn mënu la wax ne Sëriñ Baara fii lay jàngee ba jeexal ko mm-hmm. dée loolu loolu loolu beneen mbir la boo xam ne mm-hmm. bu ko yàlla suma soxna defal ndax dëgg la dalal nañ ko maam Cerno Ibrahima Faati na ko euh, xam-xamam ah, boo xam ne li yàlla doon wax nag wa taqulaa wa yuallimukumullah bu ngeen ragal yàlla yàlla ragal leen ak ilmu laduni wa allamnaahu min ladunaa ilma la mu defaloon Seydina Xudar loolu ñëpp gëm nañ yàlla defa na ko si Ahmadu Lamin Baara hmm. ndax li muy way moom euh, maanaam maanaam maanaam bu fekkee xool nañ histoire fi mu jot a jaar te te te njàngam taxu faa taxu noonu da ngay ne kon lii mu am nii yàlla suñu may ko suñu borom subhaana hmm. donc muy muy muy muy way yu yéeme yéeme moom nag ko suñu saaro day way day way day day way te jàngul araf te màndaxem du ca surux hmm. loolu suñu musaaka way na ko ndax suñu musaaka dafa nekkoon ku yéeme koo xam ne doomi Sëñ Tuubaa kenn ku ne lay sa jikko say may-may dala ci fekk way la ca da ngeen ko xam lan sëñ yàlla jagle Sëñ Tuubaa ko ci yow dalay fekk way la ca donc mi way sëñ sëñ baar dana jàngudoon xaraf day way te te maam day xam li ci suuf mooy ni muy waye du ci am fot du ci am euh, yu bare bare du ko def ci wàllu arut bi xeetu mel noonu mm-hmm. donc kon loolu da ngay war ne kimtaan la kimtaan mm-hmm. loolu nag moo xam-xam boobu xam moom la moom moo fi bàyyi nag moom la Euh, Cheikh Amadou Bassirou wax ne kon jaatu na jamono bi ñu toll. Mhm. ku mel noonu dund ci réew mi Sénégal euh, doon diggante Kajoor ak Bawol. Euh, dundoon ci diggante boobu nga xam ne euh, bu ñëwee ci wàllu euh, social bi rek ni mu ko daan ni mu ko daan defee ak faj aajo yi nga xam ne. Hmm. booba nit ñi jafe-jafe bari na seen diggante cedd jafe-jafe bari na seen diggante xat-xat yi ak feebare balaay pes yi. Hmm. yooyu yëpp da ci daan da ci da ci ñaan yàlla suma subhaana taala suñu borom. Hmm. tinu jaam ñi ba lam ñaan suñu borom subhaana taala may ko. loolu bari na kajoor tey boo demoon ñun fa lañ féete dëkk yu bare bari bari mag mag ñi dañuy nett ne li li bi sàngam bi fi li xewee suñ baara moo fi ne bi mu ne jaañ bi ñu ko waxee lii mu saafara ko ci saas am na peste boo xam ne amoon na ko tey dëkk bu ñu naan tëb waaw yàlla ne waaw waaw li wax borom bi waaw day fal di fal di gaaw mën naa ba ñu koy <laughs> dàkkalee rekk day waaw rekk day mu ngi noonu waaw moom loolu la ndax moom rekk doogu waaw rekk day lii day am rekk day gaaw ci faj aajo waaw effectivement baat boobu mooy rekk day lii day am rekk day noonu la ko daan wax mhm. soobu yàlla nii la ko daan waxee mhm. te loolu yàlla fekk ko si euh, maanaam nangul ko lam nangul ko lam doon def mhm. donc euh, ci côté social tamit suñu baara nekkoon na ku yéeme yéeme koo xam ne euh, forme bi mu ko daan defee dafa yéeme ndax bu njëkk Euh, ku ñàkk rek dañuy xeeb ba léegi sax xëy na xaw nañ xaw naa kiitu ndax ñàkkoon dem am nañ tey mm-hmm. donc xay na loolu demise waaye bu njëkk dañuy xool ne dëkk bi nga nekk sax ngeen ay mbokk ku ci ñàkk rek waxuma la xeeb sax waaye dañuy dem ba mën nañ laa sax euh, xaw a tam mm-hmm. yaa ngi dégg ngir ak ñàkk bari na ñu daan tam démb lu bari ak ñàkk ko waral waaw mm-hmm. suñ baara nag ni mu ko daan dindee ci Kajoor mooy bu daan ñëw ci ab dëkk euh, day xool ku gën a ñàkk mu ñëw dal ak moom noonu lay def bu ko defee ña waaye ña am ñëpp te di eh, te te ñëw ci moom ngir siyaare ko kër googu lañ ko fekk kër googu lañ ko fekk faw ñu faw ñu dugg ci biir kër googu te kër googu dañu fanaan romb daaw ñu fa dugg daaw ñu teg seen tànk mm. ndax mm. a tam mm. la ñëw dafa jarañ dugg fa danaa fekk ku ñëpp suufeel waaw kay waaw loolu daal te li ci gën a bu daan def loolu bu ñëwee foofu ba nit ñi siyaare ko bu ko nit ñi siyaare ba bàyyi fi jox ko addi jox ko lu bare bare buy dem day bàyyi lépp borom kër ga waaw da koy bàyyi lépp borom kër gi nga xam ne kooku euh, bu doon luñ bu doon ko doon koo xam dafa ñàkkoon dèjà euh, am am na am na hmm. bu doon ku ñàkkoon ab dund mën na lañ ko bàyyi mën na cee dund at hmm. te ñaaral ba ci nekk tam xeebaan nga day dañ ndax hmm. ñëpp dañuy xam ne ki nga xam ne moom lañ ah. bëgg euh, yaakaar ko ñëw fekk ci kër diw sàngam kii di am na bu bu ko defee xeebaate googu loolu lépp day dañ si am lañ baara noonu la daan noonu la daan euh, jouer rôle ci wàllu social donc mu mel noonu na ko bu ñu toll jamono bu mel nii mm-hmm. jaadu na kon ñu war koo génne fësal ko ndax fii ñu toll actuellement nii mm-hmm. dëgg la tey la koom-koom gën a bari mm-hmm. tey la euh, maanaam jokk moyen de communication gën a bari waaye tey la nit ñi gën a tàqali ko tey la jamono gën a doy waaye tey la jamono gën a tëri a a a daanaka kenn ku ne bopp sa bopp ngay dund donc kon jaadu na bu ñu jamono boobu la na nit jàng ak ñuy gestu kon jaadu na kon euh, waxtu wi ñu génn ñu mel noonu moo fi indi sëñ sëñ busum yi ñu war a waxtaane euh, ki nga xam ne mooy maamam te ñi ñu du question rek dañ ñu waxtaane su déedéet mhm. ay ay maam la ñoo xam ñun ñoo ci gën a tuuti ndax dañoo am ay njaboot am ay taalibe waaw dañoo sëñ baara dafa am ak njaboot am ay taalibe taalibe mi ñoo ëpp fuuf ak njabootam te la taxoon topp ngir yàlla ak ko xam-xam ma taxoon topp ko mhm. mi mel ne sëriñ Tuubaa mhm. sëriñ Tuubaa njaboot boo génnee ci ñi ko topp <laughs> maanaam un pour kii la kon dañuy waxtaan en tant que ñoo xam dañoo liggéeyal société en tant que ñoo xam dañoo nekkaloon lislaam te yonent sa yàlla kañ leen tagg leen ndax yàlla daa yëkkati borom xam yi wax na nañ leen topp

ne kon xanaa jàngat see kon kon yàgg na 2000 mhm. 2006 euh, ba mu jagle ko Cheikh Mamadou Fadal mhm. waxtaane ay jikkoom ba ci Cheikh Mamadou Murtala noonu doomu Sëñ Tuubaa la ko toppee ba ci Sëñ Murtala mooy caat mhm. bi ñooñ jeexee mu commencé jël mbokki Sëñ Tuubaa ñi xam ñoo bokk ndey ak baay ak ñu bokkal baay te ñoo ñëpp aju woon Sëñ mag yi mag sëñ Mamour Diarra la ci tegoon mook sëñ Tuubaa ñu bokk ndey waaye sëñ Mamour Diarra moom la jox maggi mag macha allah mm-hmm. eh, jógee ci tegoon jox eh, jox ko sa maam Thierno Birahim mooy daaw daaw jéeg mm-hmm. ndax covid moo fi jaaroon moo tax ñaari at yi amut mm-hmm. mais daaw jéeg mujj 2020 bi eh, moom sëñ sëñ kii lañ ko joxoon sëñ sëñ maam Thierno Birahim ren ji nag ñu jox ko suñ euh, suñ maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta moom la wax borom dërëm ak ngërëm mm. Mm. ak suñu afe ak suñu ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay bokk ndey baay ñoom ñëpp dañoo euh, jël seen lépp jébbal Sëriñ Tuubaa mm. suñ maam moom damay wax ne moom rek doy na doy du ma wax journée kitte waaye ren ñooy parrain ñoom nga gis noonu ci photo bi mu nekk noonu ci euh, ñoom lañ ko parrainé waaye photo yi ci suuf na ngeen ko gis ñooñu ah, mooy li nga xam ne philosophie bi nga xam ne sëñ Bass dugalaan na ko ci mbir mooy Mm-hmm. xam ngeen ne dund ak dee ñoo ñoo ñoom la yàlla bindoo chaque année am na ñuy wàññeeku mm-hmm. dëgg la ñi ci wàññeeku am na ñoo xam ne ay kilifa la ñu doon am na ñoo xam ne liggéey nañu réew mi mm-hmm. ba ci kilifa aada yi sax eh, am na ñoo xam ne joué nañu rôle bu mag ci réew mi nga xam ne bu bu Sénégal fi jógee waaye yàlla ak dogalam ñooñu nag chaque année suñ bés day xool ñooñu mu rendre leen hommage bu gisoon photo bi eh, daanaka dañoo xëju ci affiche sax ndax diggante daaw ren réew mi daa tàng bàyyi ko ci ay kilifa kenn xamul toll Euh, nga xam ne daanaka xajut ci euh, affiche bi moo tax mu tànn ñeeñ rek mm-hmm. euh, bu ñu ci jukkee ku mel ne sëñ sëñ waaw sëñ sëñ sëñ Pape Malick Sy waaw sëñ Pape Malick Sy nga xam ne moom damay wax ne soppe Sénégal yëpp lool mm-hmm. nga xam ne ak demam bett na ñëpp wax dëgg yàlla kenn kenn kenn yaakaaru koon heure bi mm-hmm. ndax ci jiwam ci baaxam ci kàllaamam bu rafet nga xam fu mu génn rek day boole day dajale donc mu nekkoon xarit suñ Basiru nag xarit boobu nekkoon xaritam lool Euh, nga xam ne fu mu ko gisee da koy tàpp ci mm-hmm. kooku nañ ko rendre hommage incha allahu rabbi waaye rendre hommage ku mel ne sëñ ma sëñ Moustapha Massamba nekkoon xalifa sëñ Massa euh, sëñ sëñ Massamba waaye sëñ Abbas waa Daaru Moxti mm-hmm. ñu ñëpp dañuy rendre hommage euh, di ci rendre hommage tamit Babacar Ngom Xelkom Xelkom Baas mm-hmm. gis ngeen ko nekkoon taalib bi sëñ sëñ Tuubaa nekkoon ku jàmbare de biig rek ndeysaan doomam taawam ñëw na fa ak ak soxnaam ngir sant sëñ Bass loolu nga xam ne mi ngi koy defal seen waajur waaye euh, waajur sëñ sëñ sëñ Ablaye Dia sëñ sëñ sëñ Omar Dia mhm. sëñ Ablaye Dia kenn du ko présenté mhm. sëñ ko yaakaar naa xam ngeen ko baax ci alxuraan ji ci mhm. concours bi Mm-hmm. donc damay wax ne ku bëgg xam waajuram rek xoolal xoolal doom mm-hmm. ndax doom dañuy wax secret waajur la mm-hmm. waaye ku mel ne waajur suñ Taïdu Sarr nga xam ne moom it jàmbaar lool Taïdu Sarr xam ngeen ko euh, muy muy homme mag boobu nga xam ne euh, ci lu baax rek lay def ndax gis ngeen bërki dem yàggul dara Touba ca kanam waaw ak ci Covid bi ak ci Covid bi def waaye Touba ca kanam 300 millions yi mu leen joxoon ngir ñu defare ko ci biir dëkk bi di Touba ne Sëñ Atou Diagne Euh, sëñ Atou Diagne nekk Hizbut Tarqiyyah mhm. liggéey bu rëy bi mu defal Serigne Touba mhm. euh, ci ci ci ci kuréel gu mag googu nga xam ne tey sëñ Youssou moo ko jiite yàlla fi yàgg tawér mhm. sëñ Atou moom tamit euh, dëgg la ne maanaam nekku ci affiche yi a baax a ñoom tamit seen seen nekku ci sëñ Mamour bu sëñ Fallou ak sëñ Khalil bu sëñ Fallou ñoom it seen seen kii nekku ci seen photo nekku waaye ñëpp dañuy rendre hommage rendre hommage tamit ku mel soxna soxna say baara soxna say baara euh, doom moom doomu suñu baara loon bi fi jógee yàggul mooy waajuru suñu bas jaxate nga xam ne euh, ak ak ak sunu sunu cousin lañ mm-hmm. moom tey nañ ko ci rendre ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bari na ci mm-hmm. ak sëñ Abdourahmane Fall Tilala bi ngi mm-hmm. nga ko mi ngi noonu ci biir sëñ Ablaye Thiaw Laay di ko la a rattaxalaat diggante moo ko a rattaxalaat ndax ku bokk bokk Touba mi ngi rendre hommage suñu Pape Malick yow boo nekkoon taalibe eh, Tiwaawoon mhm. ah, da nga ne ah lekkat wax dëgg yàlla warutuma yëg sama kàddu wala may wax loo xam ne euh, ëllëg naa ci am ni mhm. ndax ndax ndax suñu Bassirou def na wane na exemple mhm. donc bu laay ni mi ngi gisee loolu nan wax na exemple kunti yi mi gisee loolu ñeseen mi gisee loolu dana wax na exemple kon lii mooy tax dafa am yoo xam ne du ay wax waaye ay jëf lay doon ndax jëf des fois mooy ëpp solo wax donc nag <laughs> xam Petit Déj tey moo tëj <laughs> macha allah yéen mm. euh, ñu tëjal plateau yi ñu yëpp macha mm-hmm. jël yéen da ñëw def ko en direct mm-hmm. sëñ Bassirou mën naa wax ne benn télévision xëy na ñu chaîne nationale moo duñu waaye mm-hmm. télé yëpp insha allah rabbi ëpp dana ñëw def ko en nga xam ne budget bi ñu def du toog am na loo xam ne boo ñëwoon tey ba gis tante ma ñu fa def man ñëw naa ah, fa jeex na ñëw naa fa barki démb si visite bi nga xamante ni sëñ Bass doon na ko def ak mboolem comité d'organisation effectivement effectivement boo gisee da ngay jàpp ne yëfi état la wallahi yëfi la te wallahi yàlla xam ne lépp ci poosam la génn ci doolam li génn daanaka communication ni ñu def mën na 60 millions actuellement ni mm. jëm nag ci wàllu lañ fa war a lekk lañ fa war a naan lañ fa war a def lépp mm. ak kaar yooyu ñëw nga xam ñoom ñëpp kenn ku ne foo ñëw sa dal ak sa nangam suñu bésul mbàkk xaade boobu préparé na ko waaye nag alhamdulilah rabbil alamin nit ñi bàyyi ko ci tamit ndax nit moom boo lebee la yàlla yàlla moo lay fay xam nga moo tax yàlla fay ko moo tax suba jàmm incha allah lay doon mm. euh, mise en place huit heures huit heures jàpp neuf lay doon mm. incha allah ren nag amul carte waaw loolu ci laa bëggoon ñëw amul carte invitation euh, ak moo doon mën a wane filtre yi ak ñi nga xam ne ñoo war a ñëw fu ñuy toog fu ñu leen dalal waaw nu loolu ñàkk carte bi ni mbooloo mi bare rek ak ñi rendre hommage moo tax suñ bi ren Euh, bu ñu naree def carte euh, da da maanaam duñ ci génn. Mhm. Euh, sinon sinon day mel da ngay limité. mu mhm. nekkoon kon nañ bàyyi carte yi jéem a def lépp mu nekk VIP nga xam ne bu njëkk dañ def ñaari carte waaye léegi lépp VIP lay doon ku ñëw daal incha allah a ñëw ci kàttanu yàlla. da nga da nga da bu jekk mhm. da nga déglu xam-xam da déglu ak mbokk da nga déglu ak benno da nga déglu loo xam ne stable mi sax dana ci dale incha allah rab loolu nag kon suba lay doon huit heures neuf heures mooy mise en place bi muñ cérémonie officielle ci lay doon kilifa yi ñëw ak état bi ñëw ñëw ba Euh, togg nañ fa añ togg nañ fa lépp waaye yeneen kilifa nag dañu leen yóbbu seen dalwaay ak ci hôtel yi waaye ku fa ñëw moom incha allah da nga ndékki añ njogoon na sax bu soobee yàlla des na ko jox ngir jëm Sëñ Baara mu ngi mooy borom bis bi incha allah mm-hmm. <laughs> donc euh, am na solo bu baax baax mu mm-hmm. nekk sunu jeneen maam joo xam ne nii royukaay la ci askanu Sénégal comme ni ñu koy waxee mm-hmm. jaajëfal nañ la macha allah ci leeral yi ci laay profité nag di nuyu waa kër Sëñ Baara ba tey ji soxna tuuti soxna maam Jaara Mbàkke waaye itam sëñ Cheikh Thioro ak sëñ Moustapha fàttewu ma benn yoon euh, sama maam maam euh, njéemi bu baax a baax donc Fatou comme noonee rek dañuy daal di ñëw jàll ci beneen ci invité yi macha allah dem bu soobee. <laughs> waaw dañ jóge Mbàkke waaw dem bu soobee. juumu leen <laughs> <laughs> jërëjëf. macha allah donc Fatou comme ni ñu ko waxee ñu bàyyi la euh, nga euh, janu ak euh, sunu beneen invité ñu waxtaanee sunu geneen maam goo xam ne nii macha allah. Mhm. ba tey jii royukaay la ci ci li nga xam ne moom moo di ci Sénégal. waaw comme ni ñu ko waxee woon deuxième partie royukaay bi.